sëñ làmp njabootu borom Tuubaa gi jëmm ja ñu leen Cheikh Abdou Khadir Mbacké ilimaani jaam ñi moom la sëñ Tuubaa liggéeyloo ci noonu horloger di liggéeyee ci montar montar boo xam ne amatoo heure bu midi jotee doo am heure midi demi ngay am wala nga am onze heures moyen xam nga boobu montar ko amul heure ni ngay demee ci horloger bi mu takk Euh, loolu ci bët bi pour gis les petites pièces qui se trouvent entre à l'intérieur de la moto sëñ Abdou Khadir non lay xoolee jëmm ji réglé ko ba ba mu dikkaat à temps wuli maanaam moo le ma ne pour nga mën koo dégg sëñ Abdou Khadir am tournevis américain am français am na calé à pipe am na créneau mboolem yi yi yi ñu war a soxla pour desserrer ko ak seerewaat fomp ba ba ba ba pièce bi nga soxla normal noonu la sëñ Abdou Khadir def doomu aadama bi ma naanee ba ëpp. ñu jëlé ma ko di wala docteur bi mënul ci man dara piki rek ay comprimé dara ñu jëlal ma wol ma ñëw ñagalom loolu la wax dañuy yóbbu leen ko ci borom ngërëmal yalla mané ko sëñ bi xadi mu ne wut leen lu weex geganal ko su suba ngeen yobul ko sëñ bi xaajir bi ñu dikkee ba ñëw sëñ bi xadi ni ko ne jakk la xamni moy Cheikh Abdou Khadre jii mu ñëk ma te bëgguma ko feeñal ma lakko anglais te musuma jaar école waaw dama ko ni good morning I understand you You understand me? Your name is Abdul Qadir Jailani. My name is Mamoudou Fall Diouf. I come from Abidjan after yesterday. I love you as my brother. I love you in my heart. Don't forget me. I don't forget you. All shall pass. Be peace. God loolu laa wax sëñ bi xaaj mu jël kaala nga teg ci jiw dégg na li ma ko wax ndax monsieur Ali Nour lisaan wal loolu laa ko xam nañ ko. ma ne ko xam naa la bu wér xam nga ma. Abdou Xaadir ji lii nga tudd ma tudd Mamadou loo gis day weesu nag loo gis day jàll yéeye grand mu daal di muñ daal nañ nañ nañ wutal ndox may ñu wut si ndox may ñu ñu daal di wut biteel ci ñoo ñu lal ci ko jumaa ji dem ay nu duy ndox ñëw mu ubbi ñaan ba tefli tëj ne nañ koy sot ci bopp bi di ko raay ci yi boobu maa ngi jàkkaarloo génnee seen bi xaj yi comme nii ma toogee génn billaahi la si lay lay la biteel bi fu mu rek ne taaf ma ne ko am Mbàkke damaa xajul ci biteel boobu nag mu ne wax na dëgg nañ motal bopp ak sable te yem ci teen bii teenu jàppukaayam boobu ci penkub jumaa ji den nga xam ne moom la xabru bi julli ci moom ñu yem ci jël biteel bi ak sable yi ñu def ordusel duy ko ba mu fees ñëw mu dal di ubbiwaat ñaan tifli dinañ ko sot ci bopp bi te raay ko ci bët yi ma soog ma soog a nuyooti ñu ànd ak man ñëw jaar sëñ Maodo Bousso Dieng mu ne Ablaye Mbaye rek te sa maam dañu woon sëñ Fallu du ma faatu damay saay damay jël si jamono de kon bu sëñ Fallu di dellusiwaat di Alaaji Baara la Ablaye Mbaye di dellusiwaat nag doon man laa bëgg nit ñi teel xam daal di noppalu saa mbir dara jëy Alaaji Fallu Ablaye ma demoon moo dellusi di ma demoon moo dellusi di Alaaji Baara sëñ Fallu ñun boo amee ñeent fukk at dellusi Alaaji Fallu demoon 68 Alaaji Baara toog 2008 muy kon bu ma dénkee Alaaji Baara ne ko dénk naa la janaab si te saa janaab moom di saa maam te waxoon loola nit ñi war nañoo xam ni kon man a rawatina nag muus mi mos di yéegi jumaa ji buñ ko tëjee may yéeg ni mos def ñii rek laay jaar dama jaar ci buntu bi ñii rek laay jaar yéeg mag gi nii ñu dégg may noddu ca kaw ca Lam Fall alaaji baar ni sama taalibe bu ko bu ko ngeen def dama saaral rek ma ne ko ah yow la ñuy bàkk de ne yaay sëñ Tuubaa 88 laa ko wax ba 2008 te booba sëñ Modou ngi fi doonagul sëñ Fallou moom kon d'abord sëñ Mourtala ngi fi sëñ Soy boo ngi fi sëñ Abdou Khadir sëñ Abdou Laat sëñ Saliou te ñii balaa la ji baaraam moom Touba ñoom ñëpp dañu dem àjjana fekk sëñ Touba man ma ne ko ñu ngi lay bàkk may yéeg ci jumaa ji di yéeg courant bi courant bi nga xam ne haute tension comme laal bala la baax da lay ba nga jeex mu sànni la maa ko mu jëpp doole ma di ko yéey lépp bu bu yeggut nga xam ne kon sëñ Touba jërul dem gànnaar jërul laaj ñu njëkk ña da nga naan mii ma xamul bëgg dem rek doyan na. ma wax la tuuti ba jàll. waaw wéyal Serigne waaw jëlal Serigne. Alaaji Baara ba nga wax xalifaam. sama hmm. kër Baye Mass ni nga laa la fekk Mass yëpp ñuy jàng kon jërëjëf maa ko seere uh-huh. boobu tugg bañ ma yóbbu kër maa si ñing ci jumaa ji laa jóge waaw ci kaw jumaa ji lañ ma jëlee man lam murit ñëw nañ la lool mbaa dara méttiw la ci kaw jumaa ji lañ ma jëlee bay waa ji yoru ma ne ko sëñ bi muy si la moom ba léegi ni bu ma gisee dama maa ngi jéglu de ci garde jumaa ji la bokk yéeg ci kaw ñëw jub ma ma ne ko yat yi moom booy boo teg ko ci du ma laal defuma jinne def ma daa am lu ma ci nu wàcc ndànk mu ne ma wax dëgg man defuma ne dara ñu ànd yéegi ci kaw jumaa ji wàcc fala ma oto bàyyi ndaam Fall jëlee ñu yóbbu ma kër maas ñi moom sëñ Saliou mhm. alaaji waaw tey taalibe sëñ Saliou diggante ndindi ak ak fii rek maas alaaji baara wut lu jéngu bañ ñu jënd xombul téeméer tëj ci boole mag jën yu yeew ah. <laughs> ak ak ñi dof <laughs> ma fa une semaine maas ñu ngi joxuma ma ma naan ma sangu ma ne ko maas yow da nga maa indi fii te yow man bindoo jox ma joxoo ma dara waaw lu xew maas na ma alaji baanaa joxe ndigal ci ñu indi la fii ndax day bañ ñu gaañ la ndax ñi la xamul mu ne nañ la fi téye ba nga dal waaye dara la du def ci yow daal tàllal tànkam bi ne ma gis nga fii ma ne ah mu ne ma egsi ma la fii jël baaram ba teg ca dojal ba ne ma egsi wu ma la fii ne ko ah wax nga dëgg de su ma demee ba tàng di dóor korosé yi ci mbar mi maa si yónnee pon ci pël ga ñu dem jënd ñaari kon ci pon mu ne raab lii ñu raab jël almet jox ma ma taal di def may yi may yi ba mu yàgg ma dal bi ñu ma ndii kër laa ji baara alaaji ne waaw nañ ko yóbbu faan ba xam dafa kàngaadoo xam na ni kàngaay du mooy day bañ a feeñ naka bi jàll naan kutu ko rek da nga daan naan kutu ko kutu ko mooy saaru sang bi eh, eh, eh, séeréer yi naan ma ne ko sëñ bi naan ma kutu ko li ma naan ëpp doole kutu ko da ngay bañ a feeñ waaye yaay sëñ Tuubaa la ñuy wax asamaan sépp a ngi lay bàkk mu lam poosam joxe jënd mm, mm, mm, bindub leetar médecin bi ci mbaaw foofu nga xam ne boo demee ba mbaaw ñoo gën a garaaw sax Fann nga xam dof yi fa lañ mu bind borom euh, euh, euh, hôpital bi ne ko sama hôpital bi seetal ma ko ba xam lu ko jot ma sol ensemble jiin ñëw docteur bi jàng ba loppi naa sëñ bi di dañu daa am benn taalibeem bu yaram bi xaw a tàng bu dof ma seetal ko comme doon ci yéen ma ne ah <laughs> kon de bi xam na ni feeñ na yow en tant que médecin xamoon nun ni ko ci dof reyaa naa ngi toog Jibril Mbay man sëñ Saar ji gaañu ma ne ko nun mi xamoo ku ci ku la ci nuur dof mun naa ah wax dëgg yàlla xaw ko ma ne ko man mii damay dof ma man de la alaaji ne damaa dof ndax bañ a feeñ docteur bi eh, daal nee na ngeen ba oto bi leen fi indi woon demagul su ngeen demee ngeen ni ko bii dof de du sunub dof nun nun doxub yàmbaa lan am ak bopp eh, ku jàng ba siir ma ni waaye kii du sunub dof pour nga